maa ngi toog lekk sama lekk bu saf bàyyi leen ma aw ma jëkkër wu ma jëkkër ah kenn takku ma maa ngi toog dalal leen seen xel te nelaw te noppalu aw ma jëkkër voilà baa leen na seen noppi ay félicitation bu leen ma ko yónnee waat de bu mu duggat ci biir samay message bu ma kenn <laughs> bu ma kenn yónnee félicitation ki ngeen may wax xaw ma ko bàyyi leen ma seen i félicitation bis bu ma takk sa yee incha allah da ngeen may gis ma toog ci kaw lal def voilà madame tel tant que gisagoo leen kenn may ma ay eh waay bu leen may invité ay jëkk ci même ku ma xamul kii mooy kan ay eh waay wàcc leen ma ah tant que gisagoo leen non loolu nag ma kenn solo def di xale yi di def sañ sa ba mel ni tàngal bu yàlla macc rek na tëf saani mel ni perle tareem daal leen bidi mi se temps xaar leen loolu ah, eh, ah ay bàyyi leen ma ki ngeen may wax ko ay waay ma ki ma nopp kooku ay waay leen ma <laughs> wàcc ma <laughs> sarax leen ngeen may tojal ci deux mille vingt trois bi mooy sama tey ba fa nekk au lieu que ñu wax ñu fekk ay ñaari salopard yi ñuy ñuy lijjanti seen bopp. ñaari ñaari manque ak kuka ñu toog fi di toog fi di lekk seen lekk. lekk yu neex ngeen may. ay waay bàyyi leen ma wër na yàlla sëyu ma sëyu ma sëyaane ma bàyyi leen ma vraiment xam naa nag yéene ngeen ma ko bu baax a mais xaaral. tout rek inshallah allah ki may bëgganteel incha de dina def fulla ah <laughs> ngeen ma ngeen souhaité ba heure ménage mais pour l'instant je suis pas blague à part vraiment là je suis sérieuse nag xam man moom damay fo je suis pas mariée vraiment voilà et la personne vraiment bi ngeen may wax xaw a ngi may tooñ di ko en même temps dégg nga arrêté leen de ben heure ménage wu dugaat nag voilà ay daa ay daa mais vraiment nañu bind lu am solo vraiment y a tellement de choses beaucoup plus important que Adia Diallo sëy quoi vraiment non t'inquiète pas non dañ pas yéné rek bis ma billahi dina len wax man mi. bëgg xew bëgg sol